jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy yéesu yëgle na metit yi ko nara dal nettali bi mu ngi cosaanoo ci Macë saar fukk ak juróom benn aaya fukk ak ñett ba ñaar fukk ak ñett Mark saar juróom ñett aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba fanweer ak ñett Luk saar juróom ñeent aaya ñaar fukk ñaar saar fukk juróom ñett aaya fanweer ak benn ba fanweer ñeent boroom xamxam yi jëkk nañu ñëw ca liir ba yeesu indi nañu miir ngir ki nar a dee góor gu màgget ga it simeyon waxoon na maryaama ca kër yàlla ga benn bés xeej dina jam ruwam mu yégle ne dina gis ku mbëgg lool ab mettitu itam nee na xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaaru àddina benn bés yeesu laaj na ay taalibeem lu nit ñiy wax ci doomu nit ki mooy kan ndaxte yoon yu bari yéesu woowee na boppam doomu nit ki taalibe yu tontu am na ñu ne yaay yaxya te buur erod reyoon ko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 noonu mu àrtu ay taalibeem bu ñu wax kenn ki mu doon li dale ci jamono jooja yéesu tàmbale na xamal taalibeem yi ne war na dem yerusalem daj fa yu bare jóge ca njiit ya ca sëriñ su mag sa ak ca xurbakat ya ñu rey ko mu dekk ci ñettalu fan ba Simon Pierre moo beru ak yéesu bañ mu wax loolu naan ko yàlla tere borom bi loolu du la dal waaye yeesu waññiku daldi na piyeer sore ma seytaane yëfi nit ngay fonk waaye du yëfi yàlla beneen yoon yéesu wéetoo ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen nu ngi dem yerusalem te li yonent yi bindoon lépp ci mbirum doomu nit ki dina mat dinañu ko jébbal ñi dul yawut ñu ñaawal ko saaga ko tifli ci kawam gannaaw bu ñu ko dóoree ay yar ba noppi dinañu ko rey waaye ñetteelu fan ba dina dekki taalibe yi xamuñu woon li mbir yooyu tekki woon des leen nëbboon li mbir yooyu tekki woon xamuñu lu yeesu doon bëgg a wax bu mu nee doomu nit ki dina joxe bakkanam ngir jot ju bare fii la nettali nanu jàng aaya bii doomu nit ki war naa sonn lu bare sëriñ su mag sax ak xutbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekk ñetteelu fan ba luk saar juróom ñeent aaya ñaar fukk ak ñaar